mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare ci bis bu tedd bi eh, bisu ajjuma ji ci weer yu tedd yi ñu nekk eh, tey jii nag ñu ñëwoon ngir waxtaane benn tomb ci tomb yi nga xam ne dafa yitteel lislaam lool waaye yitteel tamit lu ñuy tuddee doomu aadama yëpp tomb bi mooy euh, ñi nga xam ne seen yitte yëpp mooy ji jéema wuññi li nga xam ne yàlla da ko suturaal ci doomu aadama sunu boroom dafa wax subhaanahu wa taala fi alquraan alkarim ñi nga xam ne dañuy lor jullit yu góor yi ak jullit yu jigéen yi di leen tuumaal loo xam ne ñoom defuñu ko ñooñu dey ñi ngi yenu lu diis mooy ñi ngi yenu bàkkaar bu mag a mag boo xam ne mi ngi ci seen kaw dox wallazina yuzuuna almuminina walmuminat bi gayri maktasabu faqad ixtamalu buhtaanan wa isman mubina Euh, doomu aadama bi nga xam ne yitteem yépp mooy toppatoo keneen li mu nëbbal boppam walla muy dox di topp awray keneen bu ñu baatu awra mooy lu nëbbatu ci ku mën a doon di ko mébétal toroxtaange walla mu koy mébétal tarxiis na xam ne moom moom yi di def loolu ku yàlla tëkku la yàlla tëkku na ko ci waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moo daan firi alquran mu wax ne yéen mbooloo mi nga xam ne da ngeen a gëme làmmiñ te yeggul ci seen biiri xol mooy yaa machara man amana bi lisaani walam yadxulil imaanu ba ñi nga xam ne dañoo gëmee làmmiñ waaye gëm gi yeggul ci seeni biiri xol ñoo ñu la yonent bi adressé wax ji mu ne laa taxtaabu al muslimin bàyyi leen di wax ay kàddu yu ñaaw di ko teg keneen di ko teg jullit ñi bu leen topp awra yi nga xam ne sunu boroom da ko nëbbal kum mën a doon ngeen topp ko di ko feeñal nee na loolu lu ñaaw la lu bon yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne képp koo xam ne mi ngi topp loolu nga xam ne sunu borom da ko nëbbu di ko jéem a feeñal na xam ne yàlla sunu borom dana wuññi moom it ay awraam maanaam dana wuññi ay mbóot yoo xam ne mi ngi ko denc bëggul kenn xam ko waaye ni mu taxawoo nit ñi te nit ñi doon njabootu sunu borom moom it yàlla dana ko bett wuññi eh, awraam wuññi ay sekkereem te lislaam dañ ko war a jàng mu bañ a yem ci ay làmmiñ waaye ñu dugal ko ba ci jëflante ndax lislaam li ci ëpp yonente bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne ad diinu al muamala diine dëgg-dëgg ci jëflante lay feeñ waaye du ay wax kese-kese am na ku ñuy wax Hazan ibn Yazid il aslami radiyallahu anhu nit ku baax la woon am lu ko dal ci tarxiis mu def lu yàlla di aaye mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow ndawul yàlla li man de dama reconnaître bàkkaar boo xam ne def naa ko mooy li ñuy tudde bàkkaaru njaaloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ah yow Hazaan dafa giñ ne ko wallaahi yaa Hazaan maa ngi giñ ci yàlla ne ay yow Hazaan waa lii de boo ko nëbbaloon sa bopp moo gën ci yow moo gën nii nga def kon loolu liñ ci mën a jàng mooy doomu aadama ku néew doole la ku néew ay pexe la boo ko méngalee ak dogali sunu boroom yi méngale ko ak tentation yi nga xam ne moo koy faral di dal léeg-léeg mu juum dara dal ko waaye bu mu naagu mukk ci yërmande yàlla na xam ne yàlla moom ku bari yërmande la ku ñeewent jaamam ñi la mu ne ko yow Hassan lii dey da ko waroon a nëbbu boo ko nëbboon moo gën ci yow te fil kutubil fiqhiya bu ñuy wax ismail ismail abou bakr abou bakr ismail si téeréem bi muy wax fiqhul waadix mi ngi fa bind ne am na jamono joo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam si nit ñi nga xam ne dañ leen di xadd di leen tekk ay yooni di lislaam moo xam ci dóor walla ci rey dafa mujj ñeewante leen daal ne képp ku yàlla suturaal ba nga xam ne la mu def moom rek moo ko xam digganteem ak boroomam kenn xamu ko na suturaal boppam te jéggulu yàlla te tuub tuub gu sell tuub gu sell nag mooy dogu ne loole dootoo ko def fu mu demee ci sa xel mu naqari la waaye nga yaakaar ne yàlla it ku baax la ku mën a jéggal doomu aadama la am na ñenn ci nit ñu baax ñi ñu leen tuddi de asalafu salafu ñi nga xam ne ñu jege woon yonente bi la di ko xeeñcu booba ba léegi ba ci jamono ji sax ñi nga xam ne taxaw taxawaay boobi lañ am da cee am ku wax ne man de gis naa aw nit ñoo xam ne ñoom ci bépp seen bopp am nañ ay ayib yu bëree bari am nañ ay ayib waaye biñ ko xamee xam ne doomu aadama moo mel noonu lijjanti wu ñoo xam ayibi keneen lahum uyub fa sakatu an uyubi naas ñoom ci seen bopp am nañ seen ayibi bopp waaye xam giñ ko xam doy na leen ci lijjanti ayibi keneen bi ñu xamee loolu yàlla xam seen taxawaay ci ci ci doomu aadama yi fa satara allahu yàlla nëbbal leen seen seen seen uyub yi ñoom seen ayib yi nga xam ne dañ koy nëbb ñoom am nañ ay ayib yu bëree bari xam nañ ne doomu aadama ku néew doole la soreewuñ ñoom it am nañ ay ayib waaye nëbbal gi ñu leen nëbbal yàlla tamit daal di leen di féete fuñ munta féete seen bopp nëbbal leen seen ayibu bopp ba nga xam ne eh, seeni ayib dafa jeex tàkk ñoom amatuñ benn ayib waaye safaan bi tamit am na ci salafu saalix ñu ne gis nañ nit ñoo xam ne ñoom sax jàmbaar lañ gaa amuñu ayib ñoom ndax boo koy xool ci wàllu julli jàmbaar lañ ci wàllu jaamu yàlla yi jàmbaar lañ ci waaye loolu de leen a naaguloo bi mu leen naaguloo ñu sëgg ci deri nit ñi di ci wax nga xam ne xëy na ñoom defuñu lu aay waaye ñiy def lu aay dégg nga ñoom rek lañuy ñuy waxtaane nekk ci seen der di ci wax lu ñaaw bañ ko defee ñoom foofu ñu tegoon seen bopp ci naagu yàlla sunu borom wàcce leen ba ci suuf daal di feeñal seeni ayib ñu am ay ayib mu mel ni wax jooju liñ ciy jànge mooy doomu aadama bi fu mu mën a toll ci lu baax bu mu naagu mukk ne moo gën ñi ci des lu mu yées yees tamit na xam ne yàlla sunu borom buntu yërmandeem yi tëjul na dellu ginnaaw te tuub dellu ci yàlla yàlla sunu boroom ku baax la ku bari yërmande la ndax shariatul muhammadiya yi nga xam ne ci lañuy ñuy jaamu yàlla moom dafa bañ sax ku ku gàccal boppam maanaam nit koo xam ne dafa toroxal boppam ci biir penc sharia bëgg ko li mu bëgg mooy doomu aadama bi bu xamee lu ñaaw ci jëmmam sax mu bañ koo puukare woo bañ koo wax nëbb ko ngir jëmmi yàlla waaye léegi bu fekkee ne lislaam taxawaay boobu la am kon lu ñuy wax ci ayibi keneen ginnaaw sa ayib bi bopp lislaam dafa bëgg nga nëbbu ko ba bum feeñ kon ayib yi nga xamal ñeneen lan moo tax nga di ko wax foo toll wala di ko wane di ko puukare woo ñu ne wér na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ak lenn ci saxaabatul kiram ne leen est-ce que xam ngeen ku amul dara lu ñuy tudde al muflis ne leen xam ngeen nit ku yara dal koo xam ne amul dara dara dara mooy kan saxaaba yi ne ko muflis de mooy koo xam ne amul dërëm amul fistin amul euro amul CFA amul dollar amul dara maanaam benn soxlaam mënu koo faj yonent bi sallallahu alayhi wa ne leen déedéet kooku ñàkkul ki ñàkk mooy ki nga xam ne ci sama xeet wi yowmal xiyaama suy ñëw yowmal xiyaam day indiwaale ay julli yu bëree bari suy ñëw day indi koor gu baree bari indi azaka ju bari indi jëf ju bari ju baax a baax waaye nag bi mu indee yooyu yëpp bi ñu xoolee mbiram dañ koo gis ne euh, moom kat saaga na diw xas na diw tuumaal na ko lu bon ci mooy yàlla yi lekk na alali diw tuur na deretu diw dóor na diw ah bu ko defee nag yu baaxam yooyu mu indi ñu tàmbali di ci jël di fay ñooñu nga xam ne ñoom la defoon yooyu noonu bu fekkee kim saaga ñu jël dara ci ay rafet rafetam jox kooka kim xas tuumaal ko njaaloo ñu jël dara jox ko kooka kim lekk alalam ñu fay ko kim tuur dereetam ñu fay ko kim dóor ñu fay ko bu ñuy fay di fay ba yàgg moom mu jeexal dootul yor dara nga xam ne lu mu indaale woon ci koor ëndaale woon ko ci azaka ëndaale woon ko ci ay jaamu yàlla lépp faye na ko ay bor yu mu tegoon ci deru nit ñi ba yoratul dara léegi ñu tàmbali nag di jël ci ñaawteefu ñooña mu daan wax di ko ko gàll moom ndax mu doon pay gi di ko ko jox di ko ko jox ba nga xam ne ñaawteef yooyu day dem ba dootu ko àttan mu ànd ak moom direeku jëm sawara wal iyaazu billah kon doomu aadama ay jëfam yu baax bum tax mu xeeb kiy jëf leneen waaye diine am lu am na lu mu digle ci loolu buñ si yegsee nañ ko wax